bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barke màggal gi moom ñu ngi ciy sant yàlla bu wër a wér a wér wér di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla di mu wanele ay déwén yu bëree bare bare bare bare te lu ci waay ñaan yàlla na ko yàlla nangu lépp lu baax yàlla nañ ko sunu borom nangu ci barke borom màggal gi noo ngi ci rek di kontaan nag di yàkkamti mu ñëw xiiwal la àndal fu waay nekk yaa ngi bëgg a ñëw ndax xiiwal yi nag yaa ñuy saawaan baawaan sëñ Fallou yal na na ko bur yàlla feel sëñ Fallou ci moom laa gisee koo xam ne ñëpp ko bëgg te sëñ Fallou daa mel ni day xaritab yàlla xaritab yàlla la ndax moom loo ne sëñ Fallou rek yal na ma ko yàlla ak sëñ Fallou may rek yàlla dina la ko may kon sëñ Fallou moom xaritab yàlla la. ngi ci liggéey bi jàpp bu ñuy fees nag ñu ngi ci raxas ci nii looloo ñu indi kër sëñ Fallou Mbacké jamonoy sëñ Fallou fekke wuñ ko de waaye yàlla danoo booleeg sëñ Fallou Mbacké ba lu nu jublu ci moom yàlla dana koy defal waaw. waaw ñu ngi si màggal gi bu baax a baax sëñ bi ñu ngi sant sëñ Fallou bu baax a baax a baax a baax di sëñ sëñ Abo mi yàlla na ko yàlla may fan gudd ak wér at njabootam gi yëpp ñun waa daayira bi ñun ñooy waa daayira sëñ Fallou aloom ga waaw ñun ñoo fi ñëwoon tey jii di indi sunu daayira bi damaa ñibbisi damaa seey damaa ñëw bale si jël benn carte benn xob ca kër sëñ saaw def ko ci sama nafa dogu ci na yal na ma sëñ Touba andi Touba ba ma ak samay daal ba ma liggéey sëñ Touba weer woowee ba mu laata de ñibbi si naa Touba ci lu bett sëñ Fallou day jaar jaaram moom xam naa ne ku ca nekk mën nga cee nekk ba suba jot ta du daj waaw sëñ Fallou moom jaar jaaram maam ah ku jaaxle boo ko wooyee mu wuyu si ndax sëñ Fallou mbake lu mu liggéey fii kenn taxu ko liggéey lu dul Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waaw sëriñ Fallou Mbacké nag moom lu mu fi liggéeyal jaam ñi dafa doy loolu dafa bari loolu ndax Mbacké képp ku jaaxle boo ko wug ne koŋ-koŋ mun na entré mas naa toog ci biir këram gi am taalibeem bu ñëw ni ko man de Mbacké mbaam ma ma doon liggéeyee daa làqu daa faatu amatuma lu ma liggéeyee mu daal di woo benn bëkk néegam ni ko demal ca ginnaaw wanag wax mbaam ma fa nekk nga jox ko ko bëkk néeg ba dem fekk fa mbaam ma mu xool ko mu taaru lool rafet lool mu nekk ko koo jox dellu si waat ni ko mbàkke mbaam ma daa fori mu ne ko dellul jox ko fas fa fa mu ñëw xool fas fa fas fa gën a taaru lool gën a yéeme mu ne ko mbàkke mbaam ma de daa fori woon waaye dellu si na mu ne ko mbaam ma ginnaaw daa fori woon waaye dellu si na boo leen mbaam ma fas fa jox ko loolu sëñ Fallou sëñ ah, sëñ ah, Abo sëñ Abo Mbacke ñoom doomam yëpp ñu ngi bokk toog at moom lan fi door a ñëw sëñ Baara daal di jóg taxaw ci digg jal bi muy néeg bi ma weesu tey daal na ne nañu toj néeg bi sëñ faalu nekkan ba mu jeex te bàyyi fi bi Xaadimu Rasuul sañtan nu di ko toj ba bëgg a buddiwaale xa sañca Xaadimu Rasuul bi mu daal di jóg woggante garaamu bi ne Xaadimu sol ba mu demee Njaareem di natt jumaa yi Njaareem ji da koo natt ba noppi señ Fallou daal di dem di ko waxee ne ko njël nekkul ci kër gi mu daal di ko ne sukk nuyu ko mu ne ko Fallou lu mu ne Mbacke mu ne ko damaa bëgg baraag ba ca ba ca mbaar ma ca Touba ngeen génne ko te defal ma fa néeg ndax natt naa jumaa yi njaariñ ji ba noppi. léegi sëñ Fallou daal di ñëw Touba dajale waatu Touba wax leen ko waatu baa dajale fukki dërëm ak ñeent waa nit da dajale fukki dërëm ak ñaar mu dawaat delluwaat. foo ko fëgg woo ko mu wuy si la El du gàntu kenn man yàlla dama ko bëgg loo rek El Hadj Fallou Mbacke ba sama soxna si sama kër. benn màggal sëñ Fallou bii muy kasara Rajab laa mës a toog ñëw ci bërëbam di ko Alaaji Fallou Mbàkke bugg naa bu déwénee ma ànd feeg sama soxna dewen jot ma ànd feeg sama soxna sama taaw bu gor Alaaji Fallou Mbàkke laa ko tuddee waaw moo tax man la ma gis sëñ Fallou Mbàkke këram gii yàgg naa fi loolu maag sama waaj yi ci ginnaaw fii jamono sëñ Modou bu sa ba léegi ñu ngi ci biir kër gi. di wax lépp lu nga xam ne ñoo ngi koy ñaan ci màggal gi te ko fas yàlla na ko suñ borom nangu képp ku fi indi njàqare yàlla na ko suñ borom faj képp ku fi indi wéré di na ko faj ku fi indi ñàkk yàlla na nga am. ñi war a ñëw siyaar si daal bu ñëwee nañ ànd ak yar ak taalube ak déggum ndigal waaw ndax sëñ Fall moom daa doon koo xamante ni moom euh, ku nekk am na sëriñ waaye ku jàq moom ngay woo ndax day faj tiisi di saafara jàngoro yi di wéral cëri man mi wax sama baay feebar na ba nga xam ne dañ ruy rek la daan. ñu may wax ñu ñëw ziar si. maanaam ñu dugg ziar ci jàmm dugg ci bisimilahi génn ci alhamdulilahi ndax nee naa la sëñ bi boo jaaxlee ñëw ci moom boo ko woowee mu wuy la waaye nit kuy caaxaan nag boo fi duggee di ñaan da ngay ñaan zéro lay doon waaye la ngay fas te mu nekk ci yow muy dëgg boo ko ñaanee yàlla mu jàppale la yal na nu yàlla musal ci lu bon yàlla nu yàlla xiir ci lu baax defal ko bépp Sénégal gi yëpp waaw ñu tëdd ci armeel sunu borom yërëm leen. bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb